bii deux cent places euh, quatre cent places boo ko doon jaayee deux mille francs da lay dikkee huit cent mille xam nga foo def budget trois cent millions di fut huit cent mille mooy utoo fa xaalis moo tax dunoo mujj arrêté sax affaire u billetterie boobu noonu wax noonu loolu yëpp pour segg la woon quoi léegi dañuy arrêté loolu sur invitation moo fi dugal di dimanche incha allah rabbi loolu yëpp mën na ci nekk mais ju euh, jógewul si ñun xam a dëkk dafa am ay kilifa euh, am gouverneur am ministre de l'intérieur am gouverneur am préfet xam bi am lépp léegi ñoom bi ñu xoolee dañ ne fii voie la boo xamante ne nii le vendredi day saturé ba waatul la te comme que euh, xale yi mënoo gérer ñëpp ku nekk fii jaar mieux vaut kon ngeen jàppale li ñu jàppalante boog ba dimanche ngeen defee ko noonu mais xam nga léeg bu say kilifa soxlaa benn mbir xëy ñoom xam nañ loo xamul wala dégg nañ loo déggul waaw da ngeen di fekk ci lu mel noonu moo tax ñu mujjee bàyyi vendredi def ko dimanche ndax ci dimanche moom dina libre quoi. waaw gis nga de ñu ngi de presque presque pare na waaw presque pare na incha allah. yooyu nag ay surprise naka la ñu waajalee euh, Modou ak naka la ñu waajalee Siteu loolu ay surprise la pour fii bëgg nañ daal euh, monde lamb bu démarché ñoom ñëpp daal nit ñi musul gis gis nañ musul allah waaw bëgg nañ daal lamb bu bëgg daal bëgg nañ waa lamb lekk ba suur naan ba màndi waaw. waaw bëcc moom rek gis nañ ni combat bi jaral na ko entraîné na bu baax a baax lañ gisee gum te it moom war na bi tey war na ko ban teyoo am ak cofeel bi nit ñi am ci moom ba tax na war na mën a góor a góorgóorlu. waaw c'est imminent ah, ndax bon euh, dafa départ ci buzz dem ci bill ñëwaat ci buzz ci noonu la commencé buzz bëggoon nañu toog ak euh, euh, Eric benn waxtaan nañ ci après bi ñu suñu combat bi ñuy def face to face bi defee mbuur moo indiwaat affaire bi ndax ki koy dëggal ki yor logistique moom leen jëlal kër moom mooy ñu defaral euh, installation yëpp moom it mu ñëw liggéey jàmbaar am benn affaire bu garaaw mu ngi si jàmbaar mooy non waaye il faut ngeen liggéey ak jàmbaar loolu loolu moom dina ma jaral sama àdduna ak sama lépp bu ngeen liggéey jàmbaar ba yàlla dox ko tey mu sotti ci diggante Beuz la ak Bill ñoo ko dox ba mu sotti ñu bokk nag ay bëgg-bëgg jiital loolu xaalis dara mais liggéey bëggal ndaw yi daal alors ah, bat buzz rek gars loolu la ñuy wax rek xamante ngay gis kenn jaay na combat wala kii rek ñëpp ne mais tey ku xool li nga xam ne euh, ay jaay combat jàmbar irifam incha allahu rabi dina am yenn partenariat yu dul yii yu dul combat royal incha allahu rabi si kàttanu yàlla yeneen ndax bokk ay gis-gis bokk ay bëgg xaalis moom aspect finance ko teg fële jiital ne sport ak ndaw yi gën a jiital ñu nag ñoom daal naa ne moom bu si yàlla defee jàmm ah Sénégal dinañ gis suñu liggéey ak ñoom incha allah. waaw man dama ñëw ne benn lobby la te ay ay nit ñu baax ñoo mën a ànd ay nit ñu bëgg bokk bëgg-bëgg ñoo mën a ànd Modou Lo bi ñu jàmbaar doo toog waxtaan ne léeg li lañuy def mu ànd ci ànd ci bu ñuy ut mu ànd ci bu ñuy uti mu ànd dafa bokk jàmbaar surtout tamit ba jël projet bi porté moom noonu kon boog yàlla moo ñu boole ñu ñuy ànd muy waa équipe jàmbaar muy Modou Lo muy Siteu yàlla moo ñu boole ñuy ànd. yàlla na yàlla gën a rafetal mais bu ñu ànd nag ci la ñuy àndee ci sport su waree bëre man bu waree bëre si dama bëre si su waree bëre si ta day bëre si a kenn day bëre kenn mais loolu du yàq dara suñu ànd day gën a tax suñu ànd gën a neex xam nga tax muy gën a neex dañuy ànd ànd ngor lépp loo xamante ne wor da ci am wala dara rek yàlla bu mu jóge si ñun te du jóge si ñun moom loolu moom amul sax mu ciy xaar lépp lu ñu waxanteeg mbër waxanteeg athlète wala dara dañ ko respecté à la lettre incha allah rabbi si kàttanu yàlla waaw bii di ñëw ndax gis nga saison baa ngi ñëw tëj te combat royal kenn octobre ak novembre te combat bi novembre lañ yàlla moo tax ñu ngi dox suñu kent laay kàtta ñi ngi def doxtaan ak CNG ak compréhension mais ñëpp yemuñu gis-gis nga sax tey euh, euh, CNG joxe def sax am ñu naan jox waa jàmbaar dal te làmb ji mi ngi ñëw tëj jàmbaar dafa bëgg a tëgg combat bi dès novembre mais tey boo xaaree ba làmb ji ubbi nga doog a def ay face to face uti ay uti nangam mais ak euh, budget bi mu toll du am punch moo tax na li waxtaan ak Bira seen ñu waxtaan ak moom xam na ni saison bële la jëm mais ñu ngi ciy def suñu kéem tolluwaay kàttan pour ñëpp xamee ko noonu rek ñëpp gisee ko noonu ndax mën nañ jël ko ay décembre ay février mais dafay seelaal ñaari père de famille ñooy bëre mm-hmm. mooy jëlee yóbbu leen foofu tamit seen xaalis dana jeex danañ su entraîné ba tooy su feebar yëpp du ko jar quoi waxoon naa ko maa ngi koy waxaat erreur bu ngi noonu làmb jeex 19h actuellement bu njëkk ba loolu jeex 18h30 la bu njëkk boobu Sénégal xale yi xamuñu agression xamuñu dara yéen ñëpp xam ngeen samedi ak dimanche femmes yi 19h la ñuy dem xew fi ñu jógee xew heure lu garaaw la def nag suñu làmb di jeexati ay 19h ba ay 19h30 mooy xew yëpp danañ yàpp làmb ñu yégal ko sax moo tax nañu wàccee loolu moom xaw ma calcul boobu xaw ma si bàyyi xelam déet ndax léeg-léeg ngénte bu njëkk ba 17 la woon mm. avant 19 heures mu jeex man ba nekkee xale maire noonu daan ngénte mais léegi ngénte léegi 19 heures lay commencé mais foo nag mu commencé 19 ay kii mu jeex mais la am ah waaw ñu xool rek ne ñoom tamit xam lu ma wax ay borom xam-xam la ñooñu gën a xam mm. mais daal 19 heures bi non d' accord ma ci loolu d' accord ma ci te léegi événement dafa baax comme ñi def nii ay ay ay son et lumière faut tamit nit ñi nag ñu dépassé ñun fi ñu ne woon jamonoy euh, Senghor jàll na fi Abdoulaye Wade Macky Sall ñu si beneen nguur ñu si beneen génération ñëw sóoraale loolu quoi agression yi nag képp kuñ ci jàpp amul négociation kaso baa ngi nii nan tabax yeen kaso doog door la ci amul leneen amul leneen kun jàpp flagrant délit ñu def la li ñu def yoon def yoon amul leneen nan baa nit ñi bëgg événement ñu événementiel ñu dend ko loolu mooy dëgg. ñu koy masawu nag ndax moom bëre ba pare moom bu too xaalis mbër moom li mu gën a soxla ci mooy reliquat am lépp fa la ko lonk adduna am yëpp ci reliquat la ko lonk bu ko jotee rek day métti ci moom bon li ñuy wax rek mooy métti na trop waaye nag loo gis day sanction man Ada Fass vraiment booy bu dama ko bëgg yàlla moo koy dogal dama koy supporter comprendre nga mais nag nit bu nekku ci yoon da nga ko newoo ci yoon leen yoon dëgg la Ada Fass bëgg na gàllaaj mi ngi def nangam mais nag il faut pas ñu exagérer li ñuy def rek mooy nag dañ koy ñaanal nag CNG nag mu woo ko waxtaan moom dernier avertissement bi mooy deuxième fois ñu koy def waaw ñu ko dernier avertissement am ne ko sax waay bii tax fi ñëwatee moom waxuma la un an mais dina gën a métti loolu ñu koy ñaanal mais moom it mu xoolaat bu baax a baax a baax entourage am gàllaaj daanul ginaar moom daa mën a bëri nekk xale di ne comme dof moo tax muy daan mhm. ku def gàllaaj yee lay tax daan mi ngi koy nax mhm. daanul daanul kenn gàllaaj daanul kenn wër na yàlla daanul kenn. waaw sport moom sport moom aspect sportif man laa gën a gëm. mooy da ngay jàngi da dem ñu entraîné jàngi xeex jàngi bëre dem xool jox sa yaram ñu ko baax ñu ko xam ñu tàggat la te affaire gàllaaj jël ko teg ko fële booy def gàllaaj billaay walaay di nga bëre bu bàyyi bëre munu ginnaaw doo ko am lu leen laa wax ne doo denc dara ndax chaque jour ñu lay lay yóbbu fii kañ jam Casamance Guinée Bissau Tambacounda Sédhiou Sine Saloum Kajoor Jandeer amul amul ku dem ba sa doole jeex da ngay bàyyi bëre loolu rek war na leen yéen booy yi tolluwaay la. day xoolal combat Gris Bordeaux ak Ama Baldé ku ne Ama Baldé day taxaw dugg ci gaal di di dóor di génn dóor di génn te Gris amul mënu ko téye mm-hmm. nga xam ne sport xale koy def mm-hmm. sport xale koy def danga gën wax rek ne sport moom sport la tudd da ngay dem nga tàggat nekk professionnel mekk li ngay mekk moo ni dem taxaw ne le on sait jamais mën nga xëy rek amee jeune wala épaule wala dara bàyyi bëri wala leneen yow nga bàyyi bëri préparé non non wax waxee woon noonu dañ ne woon dañ yéen da ngeen déglu kon communication bi dañ ne woon face to face bi day nekk payante mais ci biir payante bi sax am na ay ay coow yoo ci am yaakaar ni waa jàmbaar dañ ci bëgg xaalis te or que dañoo bëggoon rek segg ndax boo dee face face to face deux mille francs ñu bëri duñ ñëw loolu lañ bëggoon mais ñoo dem ba ci biir xam ne ay réeróo mën na ci am ndax deux cent quatre cent places fois deux da lay jox huit cent mille francs huit cent mille francs du la jëriñ dara léegi li ñuy def mooy sur invitation lay nekk place limitée la sur invitation lay nekk comme invitation doo dugg non du nekk huis clos day invitation ñu ñu matir ñoo fi ñëw nag ñoo xamante ni dafa ku saaga du am sandi xeer du am dara. ñoo amul ay mbaari non amul taj mbaari moom amul moom. nu mu tudd xale boobu xale bu jigéen nu mu tudd xale bu bi. xale bu jigéen bi dëgg ginnaaw laay. Ah? amul non amul ay eh, marem naar non marem naar du ñëw marem naar ñu koy ñu ngi koy waajal benn bu mag a mag a mag ah. ak ak jarbaatu Arafas gis naa tey benn xale Souleymane xaw ma ayoon na ñooñu ñooñu duñ ñëw fi <laughs> ñëw dina bëgg moom ay grande dame ah ay ay ay moto yu charge ñoo toog enjoy affaire bi quoi incha allah. ban message ñun schéma yi leen tegal ñu fexe respecté le maximum possible rek mu bañ am débordement te it na ko fii fi ñoo sol ay tiitu doo ay titig ak ay short ay yenn affaire yi doo dugg moom loolu moom dañ ko wax policier ba pare. ah déet bari si ñëwee ay tig-tigam la. tig-tig sol tig-tig bu ñëw xam naa ay jordan yu rafet lay sol moom ah, ah. comme Modou. Ah, ay jordan yu rafet la ñuy sol ñoom bu ñuy ñëw ñoom moom ñoom dépassé nañ loolu quoi. waaw kontaan nañ ci yow. ñu leen jaajëf.